boo mbokk internet di ziar naa leen mbaa yéen a ngi am jàmm yéen a ngi fàttaliku waa ji nga xam ne moo doon génn ndaw si nga xam ne mooy liggéeyee poor ba mu nettali woon leen histoire am waa ji nag nee na ginnaaw bi ma jàllalee histoire bi nee na gis na lii di seeni ay commentaire gis na tamit conseil yi nga xam ne moom ngeen ko ci conseil nee na nag ginnaaw yàlla yéen internet di la ci yaakaar ba tax na mu daal di indi problème am bii di émission nettali pour ngeen jox ko ci ay conseil nee na nag wax dëgg fa yàlla gis na conseil yu bari yi nga xam ne ñenn ñi nee na ko takk takk ko moo gën njaaloo bi ngeen nekkee te nee na nag wax dëgg fa yàlla loolu moom ay conseil yu am solo la nee na même conseil yi nga xam ne ay critique la nangu na ko ndax nag yaakaar la am ci yéen ba tax na mu daal di koy indi émission nettali nee na nag ginnaaw bi mu dégloo seeni conseil daal dinay am fit dem na toog ak kii di femme bi daal di koy expliquer ne ko daal su ma sañoon ñu daal di daganal suñu diggante moo gën nii ñu nekkee nee na nag vu yàlla def na am na cofeel ci ndaw si ndax nag bi mu commencé sekk ndaw si daal am na ci ndaw si cofeel ndax nag bu dee dëgg rek mooy dëgg ndaw si nag neexut a bañ macha allah jongoma la te it nit ku am cas la am caca cas. nee nag bi ko waxee ndaw si nee na ndaw si ne ko wax dégg fa yàlla man soo gisee waxuma la woon nga takk ma. benn xale nga dama doon bañ ma wax la nga takk ma après duma xam nan ngay réagir le fait que mag gi ma lag mag moo taxoon ñamewuma woon a wax ne la nga takk ma kon donc moom ak ndaw si kenn ku ne daa ngi doon suur sa morom kii jàpp ne su ma ko nee kaay ma takk la day bañ kee foog ne moom it su ko nee takk ma day bañ ndax xale la nee nag ndaw si ne ko vraiment musuma dégg nouvelle bu ma neexee nii ndax nag jëkkër rek laa bëgg dama gisagul ku ma takk moo tax te comme am naa ci yow cofeel mais maa ngi doon hésité ma wax la nga takk ma nga bañ vu ko xale nga man maa la mag nee na moom nag comme bëgg na ndaw si te it dégg na ay conseils yi ngeen ko jox ne ko takk ko nee na bi mu waxee ndaw si aussi ndaw si daal di d'accord pour ñoom ñaar nañu sëy nee na ndaw si daal di koy xamal ne man actuellement nii samay ay mbokk sori nañ ma mais nag comme yàlla def na man mun naa maye sama bopp mun naa wut ay kilifa yoo xam ne rek dinañ daganal suñu diggante man ak yow nee na ndaw si ne ko c'est vrai samay mbokk sori nañ ma mais su ma leen woowee wax leen ne gis naa fii ku ma bëgg a sëyal dinañ accepter mais nee na par contre moom son problème mooy ndaw si 37 ans la am moom am na 26 ans nee na lool du dara parce que l'âge na compte pas mais aussi moom tamit bi ndaw si indee ay mbokk moom it ci la xelam dawee kii di ñii di ay mbokkam nekk fële ca Saalum bu ñu yëgee ne mi ngi bëgg a dugg ci ndaw su ko mag est-ce que dinañ ko nangu ndax nag nee na moom làkkat la te xeet bi mu bokk dañoo raciste ba pare xaw a compliqué ci wàllu sëy nee nag muy tiita tiit ndax su leen waxee ne dafa bëgg a takk ndaw si mu nekkal nañ la ñuy réagiré nee na en même temps grand wam bi nga xam ne moo ko jëlee Saalum indi ko ca dëkk bi ñu nekk ba mu xamante fa ndaw si grand bi yëgagul problème bi nee na nag loolu yëpp bu weesoo ndaw si aussi proposé na ko ne ko soo ma takkee su ma sañoon liggéey bi ngay liggéey sax danga koy bàyyi dangay toog man ma dem liggéey bu ko defee yow nga toog ci kër gi su may dem ma bàyyi la fi su ma ñëwaatee ma fekk la fi nee nag ci la waxee ndaw si loolu xalaatuma ko ci sama àddina moom kay dama lay takk daa di dem ngay dem di liggéey man tamit ñuy dem di liggéey saa yoo ñëwee man ak yow ñu tase fi nee na ndaw si ne ko soo ma takkee nga fekk si ma fii ci sama kër gi ndax nag dama wéet aw ma kenn ku ma nekkal nee nag ci la waxee ndaw si man bañuma loolu yëpp mais nag takk la bàyyi sama liggéey moom xalaatuma ko damay liggéey nga liggéey bu ñu tasee ci kër gi bu ko defee jàmm daal ne ñooyu nee na ndaw si ne ko loolu yëpp amul problème mën na nekk nee nag ci la xalaatee mu toog daal di xalaat xelam nee na il faut mu waxtaan ak ndaw si bu baax a baax pour xam ne ndaw si lan moo tax carrément ndaw si di sëy ak moom ma ne ko ca cey nee na ci noonu mu ne ndaw si léegi yow dama bëgg nga wax ma carrément lu tax nga bëgg a sëy ak man ndax sexe bi kese moo tax nga bëgg a sëy ak man en tout cas man sëy bi ma décidé pour sëy koog yow mooy damaa bëgg a sëy yow amag yow ay njaboot su fekkee ne pare nga ci loolu pare naa pour lool ndax nag 37 ans nga am ba léegi mun nga am ay njaboot mais bu fekkee ne nag dangaa bëgg a sëy man uniquement pour le sexe mais pare woo pour jural ma ay njaboot loolu aussi damay daal di génn ci sëy bi nee na ndaw si ne ko man maa ngi ni am 37 ans ba léegi amaguma doom noonu laa bëggee am doom kon nag xam nga ne soo ma nee danga may takk pour am ay doom man tamit loolu rek laa bëgg ndax ba léegi amaguma ay doom nee na mook ndaw si daal d'accord nañu ci point boobu ba fi mu ne ñoom ñaar ñu ngi ci projet mariage naaw bi mu jàllalee nettali bi émission nettali te ragaloon rek moo taxoon waxul woon ndaw si ndekete ndaw si aussi ragal ko ne takk ma di xalaat mu bañ moo tax ndaw si waxu ko ko woon kon daal ku bëgg fu fanaan ak ku bëgg ko wéttali te jël bunt bi du leen boole actuellement ni daal moog ndaw si d'accord nañu ci sëy bi mais nee na moom som problème kese kese moom moo ci des ndaw si moom pare na moom surmonté na état bu wax ndaw si ndaw si accepté te lépp ginnaaw yàlla conseil internet émission nettali ñoo ko may fit nee nag la problème bi mu desee mooy ay waajuram ndax ay waajuram dinañu nangu ma bàyyi mu daal di takk ndaw si ndax garaawam bi nga xam ne aussi moo ko jëlee ca Saalum indi ko ca dëkk bi ñu nekk dina ko seetaan mu daal di takk ndaw si ndax nag xeet gi ñu bokk ñoom ay réalité lañ am te dañuy bëgg dencal la say mbokk te am na sax kuñ ko doon proposé naan ko kooku lañ la dencal mooy sa jabar nee na nag soo gisee mu bëgg a dugg ci ndaw si wax dëgg fa yàlla bëgg na ndaw si torop te instant bi fépp fu mu toog day xalaat ndaw si di ko xalaat ba tax na mu ne na dugg ci ndaw si ndax bu ci duggul mun na dem sax ami jabar ba pare mais xelam du jóge ci ndaw si muy wëlbatiku di ñëw di njaaloo ak ndaw si te nag njaaloo baaxul nee looloo tax mu bëgg a gëm daal di ciy dugg te bañul ndaw si ndax ndaw si neex na ko moom it ndaw si won na ko mbëggeel nee na loolu mooy problème am nee na ginnaaw sax bi mu waxtaaneek ndaw si ba ñoom ñaar ñu d'accord ba fi mu ne teg seen projet mariage donte marié guñu nee na ndaw si jëndal na ko lii di iPhone daal di ko koy jox te moom booba mi ngi yoroon benn techno bu simple nee na ndaw si jëndal ko iPhone bu cher daal di ko yëkkati jox ko ko ba actuellement nii iPhone bi la yor après émission nettali bi nga xam ne dem na ba daal di toog ak ndaw si ndaw si d'accord naa ak moom sëy bi ba jëndal ko iPhone bi pour mu koy wuyoo nee na tout le temps nag ndaw si da koy woo di ko nemmeeku. nee na ndaw si sax fan yi da ko topp ne ko comme teg nañu projet mariage bu la neexee nga ñibbisi ci kër gi benn yoon di fi fanaan. nee na nag wax dëgg fa yàlla conseil émission nettali la seetaan mu daal di xamal ne ndaw si noonoo man kay instant bi comme d'accord nañu ci mariage moom njaaloo bi ci boppam laa bëggatul moo tax duma fi mën a ñëw di fi fanaan ndaw si ne ko noonoo c'est fanaan juste rek pour wéttali ma mais pas pour ñuy nekk di def lu ñu neex mu ne ndaw si noonoo loolu yëpp wóorul ndax nag olof njaay nee na affaire yooyu bu ñu xasee ba miinante moom wax dëgg fa yàlla doy na waar waaye duñu bàyyante nee na nag tax na mu ne ndaw si comme teg nañu ay projet nañu xaar rek yàlla mottali lii di projet mariage bi ñu daal di sëy bu ko defee man comme dëkkuma fi mun naa ñibbisi ci sa kër gi nekk fi ñu sëy te yàlla tax ma xëyee dem dóoriwaar yow it nga dóoriwaar fan yi fii nekk nga ñëw ñu sëy suñu sëy te daal di ñaan yàlla ñaar yàlla may ñu ci njaboot nee nag ñoom ñaar tënk nañu ba teg mais actuellement nii moom mooy problème bi problème bi mu doon mooy moom dañ koy ñaanali ay mbokkam dañoo war a ñëw ñaanal ko mais son problème mooy est-ce que bu waxeeg yaayam yaayam dina nangu est bu waxeek pàppam papaam dina nangu ba ci garaawam bi nga xam ne moo ko jëlee Saalum indi ko ca dëkk bi ñu nekk ba tax tey yàlla boole kook ndaw si ba ñoom ñaar ñi daal di trouver terrain d'entente uniquement pour bëgg a marier ndeysaan nee beneen problème aussi nee na mi ngi sóoraale aussi nit ñi yàlla bu ñu foog ne alalu ndaw si moo tax mu dugg ci ndaw si te nee na moom dafa fas yéene continuer liggéeyam bu laajee jox ndaw si dépense sax mu jox ko continuer daal di sëy moom ne ndaw si nag moom bëgg na ko torop ndax ndaw si sax da koy proposé naan ko soo waree dem Saalum nang ma ko wax bu ko defee ma jënd ay keesu jën daal di koy yónnee sama ay goro ya ca Saalum nee nag vraiment instant bi loolu rek mooy problème am nan la koy waxee ñii di ay waajuram est ce que dinañ nangu mu daal di sëy ak ndaw si wala déet ndax nag comme dañ ko doon wax dencal nañ la diw nee ndaw si nag moom xamul ban xeet la mais moom daal lijjantiwul yooyu yëpp li mu lijjanti mooy moom xam na ne ci xeet bu raciste la bokk pour ñu nangu mu takk non seulement ndaw si surtout ndaw si mag ko ci ay âge est-ce que dinañ ko nangu te wax dégg fa yàlla buñ ko bàyyi buñ ko mayul ndaw si aussi su demaatee am beneen sëy aussi xelam mun na continuer di nekk ci ndaw si ndax mujjee naa bëgg ndaw si te it ndaw si moo ko ko ji mbokku internet yi waa ji nag nee na lii rek mooy problème am seeni conseil nag moo ko may fit ba mu wax ak ndaw si ndaw si daal di d'accord léegi yéen lay yaakaaraat ginnaaw yàlla pour ngeen joxaat ko conseil nan lay def ba daal di affronter lii di ay waajuram wax leen ne ndaw si la bëgg pour ay waajuram ñëw ñaanal ko ndaw si ba pare nag dal di koy bàyyi mu dal di sëy ak ndaw si nee na wax dëgg fa yàlla mu leen di jaajëfal bu baax a baax gis na xeetu commentaire bu nekk bu positif bu négatif mais laat te it jël na ci li nga xam ne moo jaadu jël na ko daal di koy jëfee mooy ñi nga xam ne conseillé nañ ko na dem takk ndaw si may ko fit mu dem daal di toog ak ndaw si ñu ko critiqué aussi nee na d'accord na parce que nag moom moo deful lu jaaduwul mais nag xalaat la bëggoon ak seen xalaat yaakaar ci yéen ba taxoon mu daal di koy indi émission nettali pour ngeen jox ko conseil nee na en tout cas première bi moom réussir na déglu na seeni conseil dem na wax ak ndaw si ndaw si accepté na léegi bi ko desee rek mooy seen conseil lay xaaraat pour nan ngeen koy digal ba mu mun a dem toog ak ay waajuram wax leen ne dafa bëgg ndaw si ak nan la leen mën di koy bàyyi mu takk ndaw si man nag nee naa ko loolu moom dëgg la mais pour xalaat nit ñi luñ lay wax ndax alalu ndaw si moo tax nga dugg ci wala déet xalaat boobu bu ko xalaat en tout cas bu fekkee ne alalu ndaw si taxul nga dugg ci ndaw si loolu moom boo sëyeeg ndaw si ndaw si ci boppam dina xam ndax alalam nga moo tax nga dugg si wala déet ba pare question bu important nga laaj ndaw si ndax dangaa bëgg sëyeeg man te yàlla tax ñu am ay njaboot wala dangaa bëgg sëyeeg man pour le sexe vu que ndaw si nee na la bëggut a yow pour la sexe mais dafa bëgg a yow uniquement pour ngeen sëy yéen ñaar mu am ay njaboot ndax am na 37 ans te amagul doom kon ndaw si nag wax dëgg fa yàlla wax na la bëgg-bëggam mu nekk bëgg-bëgg bu rafet le reste nag mooy comme ni nga ko waxee mbokku internet di incha allah dinañ la joxaat conseil xoolaat nan nga mën a def ba convaincre say parent ñu takk ndaw si vu que nee na même buñ ko mayul ndaw si aussi xam na ne bu amee beneen jabar it ci ndaw si lay nekk ay ca mbokku internet di waa ji li la indiwaatoon daal di ne nañ ko ko jàllaleel ndax dafa bëggaat conseil pour ngeen wax ko nu muy def ba convaincre ay parents wam pour ñu may ko ndaw si ak grand wam bi nga xam ne moo ko indi ca dëkk ba ba mu xamanteek ndaw si nan la koy convaincre ak aussi nit ñi bañ a xalaat ne alalu ndaw si moo tax mu dugg ci de toutes les façons dina continuer liggéeyam te it lépp lu mu warloo ndaw si incha allah lépp lu mu mën dina ko ci def nee mu leen di jaajëfal bu baax a baax ci fit bi ngeen ko may ba mu mën a dem affronter ndaw si ba ndaw si sax daal di mujjee accepter léegi nag parents yi rek moo ko dese muy yaakaar yàlla yaakaar ci yéen pour ngeen joxaat ko ay conseil mu mun a dem daal di waxtaan ak parents yi bu ko defee parents yi daal di koy ñaanali ndaw si accepter léegi nag mbokk intérieur yi naa ñaan ñaan yàlla parents yi accepter ndax nag wax dëgg fa yàlla suñu fierté la sëy boo xam ne dafa jaaree ci émission nettali ba yàlla dogal sëy boobu loolu dina ñu neex torop ñun waa nettali ba tax na ñu leen di wax rek conseil bu ngeen am bu ngeen ko mën a jox ba parents yi ak accepté mu takk ndaw si ñu neex ndax bu dul dara union boole ay nit loolu rek dafa baax te loolu damay dégg à chaque fois mag ñu baax ñi naan képp ku boole ay nit ba ñu nekk ci jàmm ba jàmm jooju jur ay njaboot yàlla def njaboot googu barkeel kenn ku ne di nga ci am tiyaaba ñu nag nu ngeen ko mën a conseiller nu mu mën a convaincre ay parents am ba ñu bàyyi mu takk ndaw si fii ko bëgg na ndaw si ndaw si bëgg na ko te nee nañ it décidé nañu pour sëy te yàlla tax ñaan yàlla yàlla may njël njaboot loolu daal ñu ngi xaar nu ngeen koy conseiller ba ay parents am accepté ñu daal di takk sëy bi loolu daal en tout cas dinañu neex torop ñun waa émission nettali bu sëy bi jaaree ci nettali ak mbokku internet yi ak seeni conseil ba yàlla dogal sëy boobu am dina ñu neex torop kon nag ñu ngi yaakaar yàlla yaakaar ci yéen ci ay conseil yi ngeen koy joxaat ba mu mën demaat toogaat ak ay parents am bu ko defee nag ñu daal di koy accepter li di sëy bi mu bëgg comme nee na même su takkee keneen it xelam day nekkaat ci ndaw si ndax ndaw si la bëgg ay ca mi ngi ñu leen di jaajëfal bu baax a baax yàlla na ko yàlla mottali yàlla na yàlla eggale yéene bi ci barke Seydina Muhammad ndax nag sëy moom dañuy ñaan yàlla toujours rek muy am bu ñu sañoon célibataire yëpp ay am jëkkër bu ko defee rek xeetu mooy yàlla yi daal di wàññeeku ay ca mu ngi noonu di leen jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal kanasatu la coréenne moo nekkoon na ci caméra bi di nuyu bu baax a baax suñu DG Sey Latir jaajëfal bu baax a baax rek mbokku internautes yi parce que nag bu ngeen waxtaanee ak bu indiwaatee ay retour macha allah dañuy bég ci yéen ñu leen di jaajëfal rek bu baax a baax yépp yéen la wax dëgg fa yàlla conseil yi tax na mu am fit daal di wax ak ndaw ñu leen di jaajëfal bu baax a baax di leen joxaat dig daje suba incha allah ci yeneen i nettali D'ici là, portez-vous bien et bon suite de programme sur Thiès Info. ñu daal di koy terminer ak suñu kaasu café